These are phone cases, dialogue, 500 dollars more. No, because me, I go to the factory. Me, Why? Yo, yo, yo, man, yo, yo, ngay duggee Dubai, ngay duggee Dubai. <laughs> Xaaral ma, xaaral ma wala ma koy tekki. Kay, kay, kay, kay, kay, ba ci bii, ba ci bii. Ma xool, ma xool. Da la ko woon. Kii mi ngi nii, yii mi ngi nii, yii moom mujjee jën ci Vapor Max déjà. That's the last one, come on. With two color nights. Vapor Max li mujjee génne nii la. mi ngi di xool xool talon bi xam nga boo xool xool du ma ko sol sax. non dafa nànk rek dama la bëgg a woon dama la bëgg a woon sa fi ngay buubee tënk de man seen gerte gi lañ ma yónnee may la du ma sol fekk. Mohamed yow yaa ko jàppee fekk. ah ah mais ah ah, ah fekk la kay. yow nga bàyyi story nag ah, moom nag du fekk nag moom moom original la ci moom. non non ci euh, moom comment ça euh, comment ça peut gëstu loxo. non non gerte bi yàgg laa yónnee moo ko yónnee sama photo yi. yow dafa nànk gis nga bii turki la woon sax. bon moom laa sol nii bii. kii